jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bu ñu leen di yoo dalal leen ak jàmm ci seeni i actualité du jour dooree ko foofee ca diwaanu jàmm gën si Cap Mbaaw foofa nag kenn te mu bokk ci ñi ndox yi moom seen kër sonal leen loolu moom la ñu fekk mu daal di ñàkk bakkanam ci biir këram waral nag jamono ji askan wa yeewoo foofee ca diwaanu jàmm gën si Cap Mbaaw rawatina sax quartier bi di Samsam 3 nekk ci tiis ak njàkkare jamono ji nag li nga xamante ne ni moom mooy cause du dese bi kenn xamagu ko lu ci mënti am ba des ñoom nee nañ ginnaaw bu ñu defee découverte ba daal di nañu alerter autorité yi itam daal di ñoo jël léegi ab néewam yóbbu ko foofee ca hôpital Aristide la Dantec jamono ji ngir daal di koy defal autopsie mën a xam ci yan anam la ñàkkee bakkenam identité am nag jamono ji kenn révélé gu ko waaye ubbi nañ ci ab l'enquête ngir leeral rek mbir mi ni mu demee foofee ca diwaanu jàmm gën Sicap Mbao agression bi amoon ay fan suñu ginnaaw foofee ca diwaanu Daaru Ndooy ci benn complexe agro touristique Samba Boy yi nga xamante ne nag ñoom ñoo defoon jëf ja ña ca des jamono ji ñoom ñëpp police dina leen teg loxo ñoom nag ñu ngi tollu ci fukk ak benn ginnaaw ba ñu defee seen jëye joojee nag jotoon nañ cee jàpp sax ñett ci ñoom bokk na ci ay employé yu liggéeyee foofee ca campement ba ñoom ñooñee nag sax ginnaaw bi leen enquêteurs yi toggee ak yi question mujj nañoo passé aux aveux daal di dénoncer rek ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci des ñu jotoon a rëcc bokk na ci ñoom nag ki nga xamante ne nii moom moo daal di violé soxna sa borom hôtel bi ak ñeneen ñi nga xamante ne nii wax nañ ne ba ñu génnee prison sax ak léegi daanaka yàggul police nag ba muy def perquisition bi daal dinay fekk ci ñoom lu toll ci juróomi pistolet bokk na ci ñoom moom mi le sax nag ci li ñu di Samba Boy yi ba noppi daal di def simulation maanaam rek mel ni ku ci yégul dara Omar Sarr itam nga xamante ni kii moom bërëb yi di wuyoo ci turu A Sall moom itam nga xam ne daf koo jàppe woon ni frère moom bokk na ci ñi jàppale ñoom Samba Boy yi ñu mën a sottal seen jëf joojule bokk kenn kuy liggéeyee rek foofu ca campement ba moom mi le sax nag ay atam mi ngi toll ci set ans ah, moom mii moo xamaloon Samba Boy ni leen seen patron ah, yor na benn mallette ah, boo xamante ne ni xaalis la ca denc foofe ca campement ba waaye mallette boobee ginnaaw bi ñu ko xoolee ay document moom moo nekkoon ci biir kii ñuy wax Mouhamed Ka nag moom bokk ci yooyu Samba Boy ngir rek mu daal di forcé kii di Asal moom bërëb ya daal di collaborer ak moom def la ñu bëgg kii di ab soxnaam moom la sàkku ci kanamam moom Mohamed Ka moomu ak ki ñuy wax Abdourahmane Diop ak Abdou Ka ñoom ñëpp daanaka ñoom la ñu yóbboondoo woon prison loolee ci décembre 2020 te biñ leen libéré rek léegi daanaka rek ay weer la def ci fàttali nag ci boobu boobule agression am na kenn ku ci jotoon a ñàkk bakkenam ginnaaw ba mu génnee rek di xool yëf yi ni mu demee ci lañ ko tiire woon ab bal bañ koy évacuer nag hôpital Abdoul Aziz Sy baax bu Tivaouane ci la mujjee ñàkk bakkenam ñoom fukk ak benn samba boo yilee ñoom ñëpp daal nañ leen di déféré maison d'arrêt et de correction bu Thiès. assemblée nationale nag jamono ji coowal faux passeport moo ni fa kur boobu le président nag faux passeport division investigation criminelle moom moo ko daal di rek démantelé ci biir nag ñaari député seeni initial di ES ak DB ginnaaw coowal Seydina Fall ñu ko gën a xam ci turu Bougazelli foofee ci assemblée jamono ji nag faux moom moo fay lëmbee ginnaaw nag ay weer yi mu topp seen ginnaaw di enquête ci boobu les réseaux cerveau ba nak nga xamante ne moom moo jiitee mafia bi niki samedi gii nag la ko dig daal di teg loxo loolee ginnaaw ay plainte yu baree bari yu ñu fa déposé ginnaaw bi ñu ko interrogé nag moom Ede Condé ay atam toll ci 55 ans daal di nay rek def ay aveu moom mi ngi dëkk nekk foofee ca cité Aliou Sow nee na nag dafay liggéey ak ay autorités yu mag a mag bokk na ci ñooñee ay député ci yooyu la député nag ñaan ñii di ES ak DB ñoom rek la préféré tudd seen ay tour teg si nag di waat ni dara ci àddina du tax ñi nga xamante ne moom yeneen collaborateur yi mu daal di koy joxe ndax ay autorité yu mag lañ ci mim réew moom Audrey Condé sax nag mi ngi dugg si détails yu ni nga xamante ne moom lañ doon liggéeyee ndax nee na yi dañ ko doon recevoir ci seen ay bureau certificat de mariage pour cliente yim leen daan indil su ko defee rek ñu mën a am ay passeport euh, diplomatique daal di dem euh, fu leen neex euh, ci certificat de mariage yooyee nag dañ ci doon bind ni jigéen ñooñee ay soxna sa député yooyu lañ su ko defee rek ñu mën a am passeport diplomatique daal di dem foofee ci réewum Europe pour loolu nag lu toll ci 4,5 millions moom lañ daan fay. moom Condé mi nag ginnaaw ba enquêteurs yi defee ab descente foofee ca këram nekk cité Alioune Sow euh, fekk nañ fa ay documents yu compromettants yu bëree bëri jëmale ci député yooyu nga xamante ni tudd na leen lu ci mel ni ay bulletins d'indemnité parlementaire photocopie passeport diplomatique euh, authentique yi nga xamante ni ñoom ñoo ko moom euh, fekk nañ fa itam ay faux passeport yu bëree bëri ay cachet ak i carte de séjour moom Condé mi nag jamono ji ñu ngi koy toppee association de malfaiteurs faux et usage de faux escroquerie ak trafic de migrants moom na nag moo di commerçant jamono ji daal nañ koy téye en garde à vue foofee ca division investigation criminelle enquête bi nag mu ngi wéyandi jëmale ci yeneen membre yi bopp ci boobu réseau de trafic de faux passeport lu jëm ci coowal Dieyna Baldé ak Bril Faye Faye tribunal bi nag ni ki tey moom la ko doon vidé moom Dieyna bu Baldé ñu gën koo xam ci Dieyna seen petit jamono ji nag daal nañ koy daan six mois yoo xamante rek assorti de sursis ma informatique itam collecte illicite ak menace de diffusion de données à caractère personnel ñeneen ñak nga xamante ni ñoom ñoo bokkoon ci boobu le dossier ku ci mel ni frère bi ñuy wax Ali Balde ak Moustapha Ba ñoom dañ leen renvoyé ci fin de poursuite yi ki nga xamante ne nag moom mooy Jibril Mbaye Fall ñu gën koo xam ci Bril Faye Fo moom mi porté woon plainte keroog bi ñuy door a taxawal procès bi dafa ne rek baal na na ba Balde ci lépp loo xamante ne rek mi ngi ko ko doon toppee ñoom ñaar nag ci fàttali dañ doon génn ba kii di Dieynaba Balde nee na ci li mu wax fiiraange jàpp ko ndax kii di Bril Fayfo dafa découvrir ni yamul woon ci moom képp loole waral nag mu daal di jëloon téléphone am ba def loole mu def ba ñu yegg ñoom ñaar ci kanam tribunal jamono ji nag daal dinañ koy daan six mois assorti de sursis moom na Dieynaba Balde yow yi am ci plage yu dakaar yi moom moo ngi woy euh, ba tey ginnaaw nag plage yu ci mel ni euh, Malika nga xamante ni nemmeeku nañ fa ay euh, ndaw yu bëree bëri ñàkk seen bakkan jëmale ci ak lap Euh, fii tamit di Lagros daal nañ fay enregistré euh, juróomi nit yoo xamante ne daal dinañoo ñàkk seen bakken ci ab noyade loolee mi ngi xew ni kiy démb ci altine gi euh, ci suba gi nag ñoom jot nañoo repêché lu toll ci ñaari koor foofee ca plage ba nekk ca Lagros bi ñu demaatee itam ba ci guddi bi ay 19 heures di jot ñetti néew moom la ñu repêché ci bërëb ya ba tey yooyu la opération de repechage sax ñu ngi ko doon def nag ci njàppandaluk sapeur pompier yu Rufisque ginnaaw loolee nag yooyu la néew daal di nañ koy yóbbu foofee ca morgu hôpital ba ñii di gendarmerie nag gannaaw ba ñu defee ab constat daal di nañ cay ubbi ab enquête naka noonee itam foofee ca piscine bu olympique club nekk foofee ca Dakar corniche ouest benn xale buy wuyoo ci turu Khadija Dieng moom moo fa lab ba daal di ñàkk bakkanam moom mi leen nag ay atam mi ngi toll ci juróom kepp ci biir enquête bi nag benn maître nageur jot nañ ko jàpp moom mi di wuyoo ci turu Beefal nag ginnaaw bi ñu ko dégloo ci procès verbal bi la mu xamal enquêteurs yi mooy xale bii di Khadija Dieng moom séen na ko ci biir piscine bi waaye booba nag fekkoon na mu ñàkk bakkanam ba noppi nee na itam moom ak ay collègue am nekk ay maître nageur lépp jéem nañ koo def ngir sauver boobulee xale laata sax ñoo woo ñii di waa suma assistance ñu ñëw def intervention teewul Khadija Dieng dafa mujjee rek ñàkk bakkanam biñ ci tegee ay simili tuuti ñii di enquêteurs yi nag ñoom piste bii di négligence moom lañ daal di privilégié lu toll nag ci ñetti xale jigéen yoo xamante ni ñu ngi doon sangook xale bii di Khadija Dieng ñoom jot nañ leen a déglu ci enquête bi ba ñu def seenub euh, témoignage ñoom ñii nag ñëpp kii di responsable de surveillance bi moom lañ joxoñ baaraamu tuuma ndax nee nañ dañoo bàyyi Khadija ci piscine bi nga xamante ni xale yi moom lañ ko réserver muy xale yi seen at yeegul cinq ans ñoom ci noonee la ñu dem ci piscine ba nga xamante ni moom mooy piscine wu mag ñi. la xam ne nag mooy maître yi ñoom la leen gënoon a occupé mooy ambiance ba ak musique ba waral surveiller wu ñu woon piscine wu xale yi. moom Khadija moom le nag ci la ñu xam ne si ay xibaar ginnaaw ba rek surveillance woon dafa jóge ci piscine xale yi daal daanu ci li nga xamante ni moom mooy piscine bu mag ba fekk ci boobu la jamono kenn prêté wul attention ci moom. moom Beye Fall nag maître nageur boobu jamono ji présenté nañ ko procureur bu Dakar jëmale ci non assistance à une personne en danger ak négligence mbokk internet yi fi la ñuy yem ak yéen ci seen actualité du jour jox leen dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen xibaar jërë ngeen jëf.